gannaaw ba mu wanee boppam ci njàng mu yaatu bi Timbereng School dafa fas yéene tàbbi ci njàngaleem métier maanaam enseignement professionnel Timbereng School hôtellerie ak restauration dana am fii ci diwaanu Grand Yoff ndaw ñi laay waxal lii nag xéewal bu ñu leen jagleel la ngir ngeen gën a mën a waajal seen ëllëg Timbereng School sunu ay filière maanaam li ñuy jàngale ci wàllu métier hôtellerie cuisine couture informatique ak su sunu ay diplôme am na DQP CAP BT BTS école bi nag dana ubbi ay buntam ngir tàmbali programme am ci weeru novembre bi li ci gën a neex te gën a am solo nag mooy Timbereng School daf leen di may inscription bi maanaam dugg bi doo fay dara bu ngeen ci bëggee am ay leeral mën ngeen a jokkoo ak ñun ci 77 423 99 58 wala ngeen woote ci 77 4 74 56 48 Timbereng School di école bi ñu leen indil ngir mu yombal seen amub liggéey